guddi ñetteel gi ci weeru koor sopp nañu ko ci julli juróom benn raka raka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon inna anzalnahu suratul kafirun lu ci nekk ñeenti yoon dana mel ni ku koreel junniy jaam jox ndogu junni ñu woor wodd junni ñu te des na ko bindal tuyaaba ju toll na li mu ñanaaw yi ci àdduna bi yépp mbokk yi ko ci bëgg yeneen leeral nga dem ci xuratu ayni bu sëriñ Suwaybu Mbàkke page 140 ila